régime bii nii lan moo ci seen seen seen seen place parce que bi ñu gagné rek automatiquement gis nañu taxawaay bi ñu am def seen ay nomination fal def affaire équipe bi ñu war a àndal mais vous qui avez cru en Ousmane Sonko en premier ci ba muy metti tey jii est-ce que vous vous retrouvez ci régime bii nii. mais on est on est au pouvoir. ça suffit. ah oui on est au pouvoir xam nga bi ñuy mëne combat bi c'était pas pour être ministre c'était pas mais ils sont en train de gouverner avec les autres. avec leurs hommes. oui et vous dans tout ça. vous qui. ku yow. ku mel ne Maimouna mais mais Dame il est il est nommé. oui mais Dame Dame Dame Dame Dame sama sama sama Dame la je n'ai rien contre lui mais le coordonnateur c'était vous. oui mais xam nga xam nga li may wax. j'ai eu une émission je crois que après ça c'est la première fois que je sors encore parce que euh, j'ai un ami qui me dit que tu es un <laughs> bon alors oui am ñu am ñu bëri ñoo xam ne dañu gis sax benn frustration. non non non y' frustration c'est-à-dire xam nga euh, ñun bu ñu porter combat bi et je l'ai dit à Ousmane quand je l'ai trouvé en prison ma ne ko moi j'ai pas d'ambition lenn rek moom ma soxal mooy lu lay jëlee fii fi nga nekk parce que du sa place. Mhm. su dee da nga pour nga jóge fii da nga war nekk président de la République man jante dina xeex pour nga pour nga nekk président de la République ndax nga jóge fii. sans rien attendre. non en retour. non c'est-à-dire que man bu dee sama personne la bu dee poste la poste moom mooy euh, mooy tax may daw mais je serais j'aurais déjà eu des responsabilités depuis Abdoulaye Wade. oui moo tax nag ñu soxla ñu mel ne yow. moo tax oui foofu lay waxee xam nga maanaam je n'ai rien contre daal ce n'est pas des propositions qui m'ont manqué man personnellement. ah ci régime bi. Abdoulaye Wade. ok ok du temps de Wade d'accord d'accord. Macky waaw Macky moom fesoon nga ci a pas c'est pas des ah oui su Macky Sall vous avez rejeté ça. je ne pouvais pas accepter la compromission parce que bu ma demee ba toll foofu jàngalekat yi ñoo ma jiital. Mhm. jàngalekat yi yaa eh, eh, confiance moo tax ñu jiital ma duma ma confiance boobu. vous avez décliné donc, un portefeuille ministériel. j'ai décliné ci sa principe. et yaa ngi fii. su Macky Sall. même su Ablaye Wade. même sous Abdoulaye Wade donc c'est pas ça le plus important ce qui est le plus important cest dire en réalité en dehors de cette euh, de ce refus de compromission c'est des gens yoo xam ne bu ma leen gisee nu muy dox ni ñuy doxalee xam naa ne mënuma def ak ñoom. mënuma mhm. ñii mun naa def ak ñoom mais man bu may ànd ak ñoom di xeex c'était pas pour que bu ñu gañee ñu fal ma